ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله لا يضيع أجر المحسنين صلى الله على محمد mbokk yi maa ngi leen di nuyu nuyu ba gën a jot boobu jullit dina ko nuyu mbokkum jullitam te di leen ziyaare ziyaare bu gën a jot bopp taalube dina ko siyaare mbokkum taalubeem sama nuyoo ak sam yos maa ngi koy teg ci loxol sëñ Moustapha Alaaji Baara mii toogee ji tey Alaaji Baara te mat ko sëkk yàlla na fi yàgg te ndax yàlla mu joxal nu ko sëriñ Cheikh Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir mii toog te sëñ Bas joxal ñu ko sëñ Sidi Mokhtar mii sëñ Tuubaa te mat ko sëkk yàlla nañ fi yàgg te di sant yàlla bu baax ci jitaay bii nga xam ne jitaay la bopp jur na ci nit ñi mar wu yaatu jur ci nit ñi xiif bu yaatu jur ci nit ñi nammeel bu yaatu ndax li gën a jafe ci dunduk nit nit ko mën koo dund mu jur résultat mooy li ñuy wax nostalgie nostalgie mooy nammeel la tax nit ñu di ko nam mooy day def loo xam ne nit ñi dañ ko daan bëgg di ko jariñoo te mu dem te lu mel noona nit ñi rafle ko di ko bëgg di ko mar di ko xaar te Alaaji Baara yàlla defal na ko lool Alaaji Baara yàlla defal na ko dundam ginnaaw dundam yëpp nostalgie la ndax day nit koo xam ne potentiellement dafa yàgg doon sëñ Fallou yàgg doon sëñ Touba ndax doon sëñ Fallou doon sëñ Touba wala doon xalifa ju baax du dam nit. ñëw rek dooley sëñ Touba ji mu tasaare ko séddale ko kàddoom gi njëkk ci kàddu yi mooy ña ko moomoon dem nañu ñi ko bokk fi des. loolu di wax ju rëy a rëy a rëy mu daal di koy fas yéene bokk daldi xool sëñ Basiiru mii muy rakkam mu wane sëñ Tuubaa ci moom mooy su doon ay at lay xool walla leneen kon day tànn ku mag sëñ Bas waaye dafa xam ni sëñ Tuubaa xoolul ay at aju wut ci mel noonu sëñ Tuubaa mi ngi aju ci coobareem day romb jëmm romb jikko sanc ku ko soob loolu alaaj bari njëkk a jàngale ci àddina bi njëkk a jàngale itam lu am solo loo xam ne mook sëñ Moustapha Bassirou mii ñu tuddee bis bi ñoo ko nuroo muy lu am importance te mooy amour propre te mooy xam sa bopp itam te mooy bëgg sa bopp te mooy dignité alaaj baar dafa diiñ teel a xam kan mooy sëñ Touba xamin wow wu am importance la moom dafa nekkul di nattable wala muy maslaa ci ne sëñ yàlla da koo fayee nit ñi alaaj baara dafa am yàqin ak xam-xam bu leer bu ko xam ne sëñ Touba yàlla da ko fayee nit ñi bi mu ko xamee itam dafa dox ci kaw loolu li ko mayeen personnalité boobu nga xam ne dafa yërmande ji lépp yërmande biir la waaye biti bi fulla ji dafa tax sax mu raglu xam gim xam ne sëñ Touba yàlla da ko fayee nit ñi alaaj baara ci loolu la dox moo tax alaaj Baara amoon autorité am autorité boo xam ne fu mu war a àttee day ñëw dogal fa di ràmmu jaam ñi di leen uuf di leen boot di leen gunge ci seeni yitte te nunguwut dëpp te fajuwut ndax loolu lépp mi ngi bàyyi ko ci xam ne sëñ tubaay maamam te dafa da da yàlla da ko fay nii ñi sëñ Moustapha Bassirou mi ñu tudde bis bi loolu rek la nuroog alaaj Baara lim ko nuroo mooy yëg ne sëñ tubaay maamam ndax xam ne sëñ tubaay sa maam ku ko xamul itam géwél yi xamal la ko waaye yëg ne sëñ tubaay sa maam comportement la li tax sëñ Moustapha Bassirou yar ay doomam ay seexam ak njabootam daaru minan yëpp mu teg leen ci wenn xàll jàngal leen liggéey jàngal leen am autonomie jàngal leen man seen bopp daa bañ ñu dem fenn di fa xaaraan ndax xaaraan yi koo gis mu di ko def il faut que ab cëram wàññi ko ndax ngor mooy dencukaayu nit ku jaay ngorom jaay nga sab dencukaay te ku jënd sa ngor jëndaale na sab dencukaay dina jël njëgg ba noppi dencalaat la ko koo gis mu jaay ngorom jaay na dencukaayam njëg ga mu jaayee ngor ga ka jënd ngor ga mooy demaat dencalaat ko ko dina boole denc ko denc ngor la ba noppi denc njëgg xam gim xam loolu moo tax sëñ Moustapha Bassirou lim njëkk a def rek mooy fexe ba ñëppam am autonomie autonomie mënoo ko am ci lu dul nungoo liggéey ba pare di doylu nungoo liggéey ba pare di doylu mooy li sëñ tubaa indi kasbiya tawxiidun wa mathun na bii la sëñ tubaa wax ku ne am na métier man nag sama métier mooy wéetal yàlla ak tagg yonent bi tagg yonent bi mooy tagg yonent bi ci jikko mooy génne jikko yi am solo jàngal ko nit ñi pour ñu am ko xamal leen ne àddina amul solo loo fi jox valeur lu dul yàlla boobee valeur luy nax saay lay doon Alaaji Baara loolu dong la xamoon ku simple la woon ci ak coloom simple ci waxiinam simple ci expression ba pare doon ko affable affabilité bi mooy boo ñëwee te arabe moo la neex arabe lay wax ak yow boo ñëwee te francais moo la neex français lay wax ak yow te moo la gën a dégg wolof gën laa xam yoonu murit amut lum ci laaj léppi yoonu murit Alaaji Baara mokkal na potentiellement itam li tax ma ne la dafa juddu rek di sëñ Fallou di sëñ Touba mooy alaaj Baara dara bettu ko ci dundam sëñ Modou Bousso Dieng ku ko remplacé ci sëñ Fallou Mbacké remplacé sëñ Saliou ci sëñ Touba ba pare ñu nëbbuñu la xam nga ne dangaa ngaa juddu di sëñ Touba ndax ñooñu kuy làmbatu ku ne boo doxee seen diggante xam nga ne noo mën a def ñu nëbb la sëñ Modou géant la lu ne def na ko sëñ Saliou daa doon sëñ Touba doom doon doomi sëñ Touba yëpp. toll nu ne ci yoon wi kooku kuñ ne jóge na fi nga toog ci kanamam te yoonu murit jayaxuwut dammut rëqut daanuwut xam nga ne ponk la ko téye alaaji baara ak sëñ Moustapha Bassirou yoon de waxtaan wi mënta gudd waaye liñ bokk mooy ñaar yooyu nga xam ne mooy yëg ne sëti sëñ Tuubaa ñu te jamono jii ñu toll nag bokk yi jamono joo xam ne waa kër sëñ Tuubaa yëpp muy ay sëtam ak i seexam ak i taalubeem dañoo wara a yëg ne sëñ Touba mooy sunu doole mooy sunu caq mooy sunu waajtaay bañ buñ bàyyi ñu ñuy këll këllee yoonu murit du loo xam ne ay nit a ko favoriser sëñ Touba lu yàlla may sëñ Touba la zalika lam ajid hu bi taxayuli bal nil tuhoo bi tax si bi bi max di tax siisil ali lii ma am pexe mayuma ko jagle yàlla moo ma ko may bu sell sell dara raxu ko koo xam ne ba àddina doxee ba léegi migration bu fi mën a am ak guerre bu fi mën a am maa lay moo ma ko jur nit ñiy daw di tuxu ñii di dee ba sëñ Touba ñëw ñu dégg ne am na koo xam ne nit ñaa ngi koy dàq ne ko yaanuy moom waa ji sëñ bi loolu pexe defu ko guerre boo fi mën a dégg rek maa lay moo ma ko jur migration boo mës dégg muy tuxoo maa lay moo ma ko jur ñu dem ba ci àgg nit ñiy daw di dem jën jënd naa ko yaanuy moom muy daw naa leen duma leen moom ñu koy neexal te yegg ci bu leen ne maa leen di moom loola di ak texe ci ñoom waa ji sëñ bi murit yi seex si doom yi sëñ tubaa yi sëti sëñ tubaa yi nan xam lin sëñ tubaa am nan ko xam sëñ tubaa du ko nuy may dara léppam yàllaa ko ko may sëñ tubaa amut loo xam ne lu muy négocier la yi nuy waxtaan yëpp di wax ay xawma parité laak yu bees yi nuy wax bëggunu cee yàpp te noo dellu doonaat benn doon génn buum doon benn baat kenn yilif ñuy fala ko foll ci réew mi te bàyyi caaxaan yi dama ne man bis bi Alaaji Baara la may fàttali Alaaji Baara baat la am te am fit te mën koo jëfandikoo te mën a maslaa ana alaaji baara waay ana alaaji baara murid yi lan moo tax mënuñoo doon benn man dama ne dama bëggoon wax dëgg yàlla bu nuy fooye sunu boppit ñu bañ a fooye liñ sëñ tubaa may te sëñ tubaa li mu may mooy lan mooy wallahi taala force économique la ñu force politique la ñu cent force centrifuge la ñu murit yi mun àndee doon benn di wuyoo ci genn kàddu barke Cheikh Mat Bamba liy màggal si du wote bu sëñ Tuubaa wootee màggal ñiy wuy si bu ñu wootee élection ñooñu duñ dem ci urne di wote ji ñun ñoo ëpp doole lépp lu mën a doon lan moo tax suñ doole ji ñuy bàyyi ñu ñuy këll këllee bu nuy màggal Alaaji Baara dañoo bëgg jikkoy Alaaji Baara des ci dëkk bi des ci àddina bi ñu xam ne Alaaji Baara sëñ Tuubaa la te sëñ Tuubaa du fi jóg nasa ani min al waral baaxil xadiim allamuhum bi annani abdul xadiim yuhallimul hayyu lazi laysa yamoot alxalqa anni abadan lastu amoot sëñ Tuubaa du faatu ku faatu doo ami kër ñu koy bind ci sa tur ku faatu sa wërsëg du yokku sa àddiyee nit ñi di ci dund di ci xettaliku nit ñu xëyut fenn di tedd gën a tedd ñuy xëy ku faatu doo wër àddina bu fu nañu defal la fa kër ku faatu doo wàcce kaamil yi alxuraan bis bu ne ngay wàcce kaamil yoo xam ne ñi dund mënuñu ko sëñ Tuubaa faatuwut kenn nam du faatu kon nan wane ne ñu ngi fi man daal du ma bëgg sax di tarxiis ci wax waaye li may ñaan murit yi di ko ñaan ñëpp dama ne yoreel nañ sëñ tubaa ak àq ji mooy lan mooy ñëpp dil si bàyyi yi nuy def bàyyi par parlooy bàyyi di bokk ci ay parti bàyyi di bokk ci ay politique bàyyi di bokk ci lépp nan dil si waat benn yoon lu tuuti rek des ci sëñ tubaa te bañ ko booleeg dara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sant nañ leen bu baax gërëm leen ci seen taxawaay ndax alaaji Cheikh Ndiaye Ndindi kon ndax ñëw na waaw alaaji seex bëgg nañoo xam tuuti ci borom àll yi Cheikh Mamadou Lamine Baara jàmbaar joojile moo tax sëñ bi nii eh, eh, yaag daaja taal gën ubbi bisimilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu kilifa yu baax yi fi teew yëpp. di jiital Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Qadir mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di jaarale ci siyaar ak nuyu gi ñu koy nuyu ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Mouhamadou Amine Baara di ci jaarale di nuyu mboolem kilifa yi fi teew yëpp ah xam naa ndigal moom jëfe rek la sant rawatina ku mel ne man mi nga xam ne sama daara yi way jura woon fii jege lool. bokkoon ci jëwriñ yi daan liggéeyal Cheikh Amadou Fadal e, ci mbay lu ci ñore ñu yóbbu ko ci jumaa kon bu ma njabootu Cheikh Amadou Fadal sante dara e, danañ ko jëfee ndax dañoo gisoon ne kàddu yi sëriñ jaaja wax daanaka doon sëkk ak kàddu yi nga xam ne moom mooy bëgg a ñëw li ñu def nag lu am solo la mooy fàttaliku fàttaliku ci koo xam ne dana fàttaliku képp koo xam ne ngëm yàlla mi ngi ci sa xol buñ la fàttalee da nga fàttaliku waaye koo xam ne nag safaan ba wala billaah moo nekk ci sa xol buñ la fàttalee dangay daw foofa da koy won ginnaaw ba la la coy dal dal la wa zakkir in nafaati dikra sa yadakkaru man yaxsha wa yatajannabuha lashqa alladi yasla annaar alkubra tumma la yamuutu fiha wala yaxya fàttali ko ñu mel nii dana baax lool ngir yu bari képp koo xam ne sab xol dana dund sa roox di dund sa ngëm yàlla di dund dana tax bu baax a baax nga mën cee jële ay bind yu baree bari bu dee dañ daan toog nii Cheikh Mamadou Amine Baara toog ñu daan toog nii Cheikh Mamadou Bachir ibnu Serigne Cheikh Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Mamadou toog seen personnalité seen daraja ya seen juddu yu rëy ya seen xam-xam ya seen jikko yu rafet ya teewul ñu dem ba ñun ñu des fii ñoom ñu jiituñu képp koo xam ne yaa ngi xalaat cay am ay ibar ci li dox dana tax ba àdduna du la këf dana tax ba doo soppeeku dana tax ba seytaan du la a dara dana tax ba nga moytu sa bànneex dana tax ba lépp lu la mën a wër ak lu mu rëy rëy nga bàyyi xel ni ngay maîtriser sa bopp bari la fi borom bi subhanahu wa taala indee woon muy jaamu yàlla nga sax ca guddi ne ca bëccëg nga ne ca di jëf ndigal yàlla yi di bàyyi ab tereem ca xam ne yàgg-yàgg danañu fekki kilifa yooyee loolu ay bind la yu ñu war a jëlee ci bés yu mel nii ci suñu yëg-yëg xol bu baax a baax ginnaaw dañ daan ñëw di toogandoo ñoom di waxandoo ñoom defandoo ñoom lépp sëriñ Alxaaji Baara mi ñu wax nag ñu wax ci tuuti lu yomb lay doon ndax kum doon ci mbooloo mi fi teew jëf nga ak moom séq nga ak moom loo xam ne mën nga koo wax fii mu lu rafet ku ne xam na ne borom jikko yu baax la woon jikko yu sàll jikko yu rafet la woon ni mu daan jëflante ak doomu aadama yëpp ca loolu ku ne mat na ci seede ca doomu aadama jikko la doomu aadama jikko moo yëkkati darajaam moo koy kaweel moo koy yëkkati ca fa gën a kawe waaye nag suufee jikkoom ak doyadi jikkoom moo koy sippi jëlee ko fi mu nekkoon ci ab juddu wala fa mu nekkoon ci xam-xam fa mu nekkoon ci daraja wàcce ko ba mu gën a suufee te dara waralu ko lu may. jikko yu suufe sëriñ Bara nag yàlla dogal na jikko yu rafet la yoroon yoo xam ne ku nekk xamoon na ko ci ñoom ci moom man sa cee wax tuuti rek ndax sàmm suñu diggante ak li nga xam ne moom moo di waxtu wi bokk na ci jikko ji ci gën a ràññeeku mooy bari yërmaande bëggul woon kenn nekk ci fitna loolu ku ne xam na ko kenn ku ma sa nekk ci fitna bu ko yéegee daf koy jaral bàyyi ay yitteem yépp nekk sa yitte ba say say say yitte saafara bari waa ci Touba bu ñu amee téléphone ci ba muy jafe jëmmam ji ca la jaare dox ca ay jéego taxaw ca daan fa xëy waxtu nekk di lijjanti ay doomu aadama boppam tax koo jóg waaye mépp mbokk moo xam ne am na yitti jooju ca mu jafe ci yow sëriñ Bara bàyyi yitteem yépp di fa xëy waxtu nekk ba mujj wutal ko fa barab ba mel na dañ ko faa dañ ko dafay far di liggéeyee ca dara waralu ko woon lu may bañ doomu aadama yi nekk fit na rek loolu moo ko waraloon kon yërmaane ju ju kawe loolu feeñoon na ci moom bu baax a baax a baax waaye bokk na ci jikkoom yu mag it mooy ñeme ab diisoo sëriñ Baara loo nekk nekk xale daan nangoo diisoo ak yow nga ñëw wax mu mu jël li nga wax teg di ci waxtaan ak yow di ci waxtaan ak yow ba boo indee xalaat boo xam ne jàpp ne ne moo gën a rafet sa bopp mën na laa tooñ sax ne la convaincre nga ma tey de waaye à la prochaine fois nag moom nangam ak nangam nga xam dalay wan ne kon xelum doomu aadama wa amruhum shura baynahum ak wa shaawiruhum fil amri sëriñ Baara daf ko jëfandikoo cëpp ci amul woon xeej ak seen nag loolu seen ci bari woon na it ku mën a daan dimbale nit la ca dimbale gi it xamu ko woon ci koom kum xam ak kum xamul man ñii di wax am na koo xam ne dama dama ko faa yóbbu mu nekkoon koo xam ne ay ay ay jumtukaay yum bëgg a jàngi lool bourse dong mu tëkkoon waaye mustawa bi tubarkal niveau bi mu am tubarkal la waaye amul ay moyen ak loxoom jot fa nga xam ne fa lay mën a eh, jaare ngir jot ca loola waaye bi mu ñëwee ba jox ko lettre bi ba mu jàng ko ba noppi moom néewut néewu ko bu ba néewu ko dara fa saasa daal di woote lijjantil ko mbiram ci jotaay bi nga xam ne keroog keroog koo xalaat keroog la ma sëgg salaaji baal ca dara waral ko lu may wane ne moom yitte yi doomu aadama yi ay la woon bokkoon ci lim gënoon a ràññi ko it mooy dëddu àdduna dañuy wax ne dëddu àdduna nag yombul àdduna bari waa na koo xam ne day nuru ko dëddu àdduna fekk ne àdduna moo ko dëddu dëdduwul àdduna waaye àdduna bala laa bala bala nga koo dëdd dëgg àdduna daf lay wut si ci ci mboolem melokaanam yi ca du la ca du la soppi du soppi sa lenn loolu ñu nekk xam nañ ko ci barab bi nga xam ne moo nekkoon ci këram néegam bi nga xam ne fa la daan fanaan bari na ci ñun ñoo xam ne kenn ku fa nangoo nangoo woon fanaan buñ la ko joxoon amul kenn ku fa nangoo dëkk amul te moom boo ñëwee bagage am mu wër ko téere yee wër ko mu toog wéeru ci fauteuil boobee nga xam ne li ci ëpp sax noonu la daan fanaane te dara waralu ko du ñàkk fu mu tëdd du ñàkk maanaam bu lal du ñàkk maanaam néeg bu baax waaye bàyyi woon xel àdduna loolu ci la bokkoon xam ne ne ay jikko la yu sell yoo xam ne nekkoon na ko moom alxaji moom Lamine Bara bokkoon na ci mooy am ful la li muy bari bari yërmande li muy lewet lewet nag bu taxaw jotee mu taxaw saa bu taxaw jotee ci li ko mat lu mu doon day taxaw ba ñëpp xam taxaw na maanaam nga xam ne nit ñu nekk xam ko ci moom bu ma sànni di jëflante koo xam ne it da koo gis noonu rek ci melokaan wi ci xamoo ko dalay daal di dalay wax wax moom mooy kan fi saase am na jëmm ju ma sa ñëw ci moom di wax moom waaye la muy wax daal xaw naa ñàkk xam alaaji baara tax mu di mu di ko wax waxin wu doggantalu waxin wu suufe sëriñ alaaj baar daal na ko waa ji waxal sa soxla xamal ne man kat nii ma mel daal di ah, daal di am lu mu wax jiñ ko boppam daal ne ko nii sama kanam gi mel danay mel waaye ginaar gu booful bootul màgg na a lewet ginaar gu booful bootul màgg na a lewet waxal sa soxla rek bokkoon na ci it nag gisin yu sore yi amoon ci dëkk bi damay faral di wax ne ba mu toogee di wax ne dama bëgg Touba mel ni ma det mun a war maanaam imagination boobu rek maanaam gis-gis boobu gis-gis bu sori boobu yitte ju kawe jooju laneen la ku ñëw ne Touba damaa bëgg mu mel ne Madina Munawara waaye bi mu songee liggéeyu Touba it xam na ne bu àggul foofa it bu fi bu fi wéyoon day danañ ci gis loo xam ne dana ràññ ko lool ndax lim fi jot a def foo xool gis ko te dara waragul woon pës séer bi mu toogee gis nañu ni mu giiroo ni mu njëkkanteeg àdduna ndax lan mooy at ay at mag moom li naan mag ku dem mu dem ku demul mu dem waaye ni mu njëkkanteeg euh, euh, àdduna ba diggante bi li muy gàtt gàtt fanweeri weer yi mu réalisé fi loo xam ne ay ati at nit mën na koo nekk ci barab ca lu tax nga sottal lu mel noonu loolu dara waralu ko lu mooy pëstéef bu kawee ak aku aku dong gu mat sëkk noonu la ko mbir yëpp yi téew woon nag maanaam mboolem liggéey yi daan am ci dëkk bi moo daa di ko seetal boppam daan toog ba ci àgg mu ne mu ne bu ma kenn topp ànd ak chauffeur bi jàpp dem wëri mboolem liggéey yi si ma sama toog bis boo xam ne kilifa Senelec ñëw nuyoo mu ne ko dama ko bala maa wax ak yow dara daa am ma lay wax boo ji boo jëmee euh, gaaraas Darou Mouhty boo ñëwee ba ci euh, station bi nga jël télé bi jëm gaaraas Darou boo jégee doodaan ba am na benn diwteer bu lay féete sa ndeyjoor pot lamp ba ko tiim dafa dëng ca bu loolu wóoru ci nit ñi mën naa daal xam nga loolu mooy yëg-yëg yi di xool di observer dëkk bi di xool fu nekk gis na lii dañ caa war a dañ kaa war a taxaw loolu nag ay yëg-yëg la mbokk yi bu ñu ci doon wax moom it mën na si wax lu yàgg-yàgg li ñuy jeexale rek mooy lu am solo li nga xam ne mbokk yi def nañ ko muy lii ñu xewal jël bis tuddee ko say mbokk loolu dafa war a am jeexit ju ju rëy rëy nañu xam ne nañu xam ne eh, eh, du dundal lu mel noonu ak mbokk gi dox ci diggante ay doomaadama dañ ko war a fonk dañ ko war a téye dañ ko war a dundal ci lépp loo xam ne moo koy yàq ñu war koo matadi ko bu baax a baax jamono ji jamono la joo xam ne dañoo am ay nattuwaay yeneen yuñ teg suñ kanam jëlatu nattuwaayu judd bi jëlatu nattuwaayu jikko jëlatu nattuwaayu xam-xam waaye nattuwaayu adduna lañ teg suñ kanam ba nga xam ne daanaka sa mbokk bala ngaa ànd ak moom da ngaa tolloog moom ci nattuwaayu adduna yooyee bala ngaa jaxasoog moom da ngaa tolloog moom ci nattuwaayu adduna yooyee bala nga koo fekki da ngaa tolloog moom ci nattuwaayu adduna yooyee loola nag duna nañu bàyyi xel ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na woon mbokk mën naa ñett mbokkam waaye mënut a ñett mbokkam nee na mbokk mën naa ëpp la ay mbokkam waaye mun leen ëpp wax ju am solo la mën naa ëpp la ay mbokkam man nga leen ëpp daraja man nga leen ëpp xam-xam man nga leen ëpp alal waaye mënoo leen a ëpp nee na mbokk mën naa gën ay mbokkam waaye mënu leen a génn man ngaa gën say mbokk waaye mënoo leen a génn dem ba ci ak nga ne maag diw bokkutuñ dara mënut a nekk mukk nee mbokk yi nag bu bu àndutoki bu nee na mën naa raw ay mbokkam waaye bu àndutoki mbokkam aw doxinam du rafet kon nag lii lu am solo la jàngal ndaw ñi ñu xam li ñu bokk lu àdduna rëb-rëb lu àdduna soppiku soppiku ñu téye ko fonk ko jàpp ko lu am solo la mbokk yi ñoo ngi jégalu bu baax ndax bëgguñoo guddal ci waxtaan yi ndax waxtu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Cheikh Abdoul sa doom yu baax yii te sëriñ Saaliwu Mbàkke jiite leen ak nun dong yi ànd ak ñoom noo ngi jéggulu di ko jaarale ci seex Moustapha moom seex Mouhamadou Lamine toogaay giinu toog ak yéen ci kaw te muy ngànt noo ngi koy jéggulu loolu lañu waxoon ne na doon li may jëkk a wax li ci des mooy njabootu seex Mouhamadul Basir teew nañu fi muy lenn ci ñim jur seeni wayjur yu góor ak lenn ci ñim jur seen way jur yu jigéen ak lenn ci seex yi dëkk ci kër gi loolu limoon nañ ko du jar dellu ci jëf ju rafet ju réy jii nga xam ne njabootuk seex Mouhamadul lamin moom seexu Mouhamadul Fadal def nañ ko jëme ko ci kër seex Mouhamadul Basir ci njabootuk seex Moustapha Mouhamadul Basir sëriñ bi délégation bi teew nañ fi. ci turu seex Muhammadul Muntaqa tayit mu wax ne bu ko ko ak cawarteem mayoon jëmmi sëñ Moustapha ji jaral na ko teew fi jëmmi sëñ Mouhamadou Lamine jaral na ko teew sëriñ Moussa mi nga xam ne mooy ki mag ci kër sëñ Moustapha Bassirou itam defe naa ñëw na fi démb siyaar la tey mu yabal rakkam yu mbokkal sëñ Bassirou yëpp ne leen nañu ñëw teew si fi sa kanam di la sant ci jëf ju rafet jii nga xam ne def nga ko muy jëf joo xam ne ci sëriñ Falilou ak sëriñ Basiiru la tàmbalee woon wax nañu ne sëriñ Basiiru dajale na ci jamonoy sëriñ Touba juróom-ñaar fukki dërëm di ko yet sëriñ Touba fekk fa seex Muhammadul Moustapha ak seex Muhammadul Fadil sëriñ Touba ne ko da nga koy jox Muhammadul Fadil mii mu joxal ma ko kon ko ñooñu sëriñ Touba leen boole woon loolee di wéy ci diggante sëriñ Falilou ak sëriñ Basiiru ba yàlla dogal seex Mouhamadou Lamine ak rakkam ju baax jii di seex Moustapha basiir ñuy wéyal loolee lu romb juróom-benn fukki at ndax dégg naa ci làmmiñu Alaaji Baara radiyallahu anhu wax ne ba mu dalee dikk Poroxaan di fa fekk sëriñ Basiiru ak bi mu dalee ñëw njaareem di fekk si sëriñ Basiiru ak ci ak mujjam wax na ne romb na juróom-benn fukki booba ak léegi kon loolu sëriñ bi lu yàgg la. boo toogee ba tey nag bis bii nga xam ne yoonu murit wépp la ñor yoonu murit mépp a ko bokk nga tànn ko jagleel ko sa sa wayjur wu baax woowu di Seex Mustafaa Basiru na nga xam ne njabootug sëriñ Basiru gépp seen xol sedd na ci e, seen xol sedd na ci teyit wane nga yoon woo xam ne li ñuy wax ci sa baay waxtu wu ne muy Cheikh Mouhamadou Lamine muy ak woyof akuk baax akuk dëggu akuk sàmm ak ku bëgg mbokk lépp wane nga ko tey kon sëriñ bi nanga xam ne lii bunt la boo xam ne euh, yoonu murit wépp waxuma ñi sant Mbàkke waaye yoonu murit wépp war nañ cee jaar te du ci roy sëriñ Mouhamadou Mountakha nag ak njabootu sëriñ ba Basiiru ak sëriñ Moussa mi nga xam ne moo mag ci ay sëtam wax na ñu ne bis bii lu rëy ci ñoom la te duñu deñ di ko fàttaliku mukk ñu ngi lay ñaanal yoon wii nga xam ne ubbi nga ko muy yoonu jokk bokk ndax ñoom mag ña doxoon nañu waaye jàpp nañ ne eh, na nama yàlla baal li ñuy tuddee ay gone yaa ci jëkk a jokk ñi ngi ñaan nga yàgg koo jokk ci barkeb Serigne Touba ñi ngi ñaan lépp loo xam ne Alaaji Baara ak Serigne Moustapha yéene woon nañ ko ci yoon wi yéen ñaari njaboot yii ak njabooti Serigne Touba yépp yàlla sàmm leen ba lépp ngeen yeggale ko ci jàmm ak salaam eh, Serigne Moussa ak Serigne taxa sant nañu ci jëf ju jii maa ngi jéggulu nag ndax xatu waxtu wi ak ñàkka xam lu may wax. ak xol bu sedd ci jëf juréy jii nga xam ne jëf nga ko waaye dama ne du ko ak bokk rek li ci yàlla sunu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci doyoon na nga dox def ko defin woo xam ne nag mën naa ne yoonu murid yépp nga ko defal ndax njaboot yi fi teew tey di njabootuk sëriñ Fallilu ak njabootuk sëriñ Basiru ak mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa gi jaxasoo nañu ci seen biir jaxasoo goo xam ne jokk nga ci tey jokk koo xam ne ay tànk rek mënu ko kenn ku ne yor say tànk di ko dox mënu ko jataay bii rek moo ko man kon bi la yàlla defalee feex ci barkeb sëñ Touba yàlla xiir la ci nga def ko defin wu rafet wii njaboot gépp sant nañ la ci maa ngi jéggulu nag lépp loo xam ne dëng na ci wax ji wala mu manqué ci ci man mii la waaye du ci ñoom waaye li ñu bëgg a firndeel daal mooy na nga xam ne kër sëriñ Basiru gépp dellu si nañ di leen joxaat loxo nit ki nga xam ne ni la sëriñ Basiiru joxe woon Cheikh Mahamadul Fadal loxo ñi ngi leen di diglu ci lépp lu ngeen ne di leen diglu ci seen i xalaat di leen diglu ci seen i bëgg-bëgg di leen xamal ne bokk gi nga xam ne yaa ngi koy jokk fas nañu yéene ànd ak yow ak njabootu Cheikh Mahamadul Lamine ngeen di ko wéyal ba ba ngeen di fekk seen maam yu baax ya yàlla na loola yeex nag ci barkeb sëñ Touba yàlla na yàlla sàmm yoon wépp dëgëral leen ndimbal li nga xam ne yàlla dig na ko jullit yi yàlla bu ci kenn ëppale njabootu sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon li des kilifa yi ñoo ko war a wax man loolu lañ mu yónni woon ci yéen muy ak cant jërë ngeen jëf. Eh, gis nga li tax def lu baax baax kii njabootu sëñ Moustapha yónni mu doon wax bii moo tax sëriñ Moustapha Bassirou jàmbaar ji yàlla na ko yàlla na ko sëñ ziyaar bu baax Cheikh Mouhamadou Lamine Bachir di ko wax mu jottali sunu ziyaar ak sunu njébbal ginoo feddali Serigne Cheikh Seydi Maxtaar yàlla na fi yàgg te wér ñi ngi nuyu bu baax Serigne Moustapha di nuyu mbokk taaliba yi fi nekk yépp di nuyu Serigne Saliou mu sëñ Moussa Bachir sëñ Moussa yónni bi mu la fi yónni nga ñëw teewal fi juumul sëñ Moussa du juum ku jàng la ku xam la ci sëñ Moussa Bachir sëñ Saliou moo jox sëriñ Baara muy tey bésu sëriñ Baara ñu tudde ko sëñ Moussa Bachirou yow sëñ Saliou nga teewal ka fi loolu rëy la man damay wax ni sëriñ Baara aw ma fayam daf ma bëggoon ngir sëriñ Touba fu ma ko gisee bala may agsi min ma murit saadix loolu nag ma bëgg ko di ko dund ba su ma ko daan wax sama xol dafay sedd ba daaw man dox damay raam ba ak si moom jëmm jooju nag damay wax ni dafa nekk un être exceptionnel lu luy être luy un être exceptionnel mooy koo xam ni danga koy wër di ko wër te gis ko jafe la wuutu sëriñ moo Modou Bousso Dieng wuutu sëriñ Saliou kan moo fi mënoon wuutu sëriñ Saliou jëmm jooju nga xam ni léppam yàlla la waaye sëñ Baara bi mu ñëwee la tubaab ba doon wax la jëkk weddi tubaab ba dafa doon wax ni sëriñ tubaa su làqoo àddina yoonu murit tas kenn dootu ko dégg am ñoo xam ni bi fi sëñ Saaliwu toogee dañu wax ni suñu daldi sunu gisatul doomu sëriñ tubaa yëf yi du dem fenn waaye ba sëñ Saali ba sëñ Baara ñëwee lan la jëkk def dafa tontul sëriñ tubaa nan la ko tontul sëñ tubaab dañ ko convoqué ndar ba moo dem mu wéet mu jaar waa Louga waa Louga bëgg jël gànnaay ni ko danoo xeexal tubaab bi doo dem min leen bu leen bu leen xeex bu leen yëkkati gànnaay sama digganteeg tubaab bi dana mokk rumbax te kenn du dégg kanang mokk na rumbax te ngeen déggul kanang si jamono sëñ Baara nan la amee président Ablaye Wade di président de la république taalibe sëñ Tuubaa ñëw raamal ko sujjóot ni ko dama bëgg la invité nga ñëw Dakar ba mu ko invité mu woo ambassadeur yëpp woo député yëpp woo ñëpp nu ñëw mu jóge kolobaan kër suñ tubaa gi dem fu mu romb sama rango ñi day day sotteeku ba nu àgg pale parce que fu mu romb ñu wax jërëjëfe suñ tubaa kon day woo kii wuute nag woo ban ko woowoon ndax nga xam ni suñ tubaa yàlla fay na ko yamul foofu yamul foofu ñu dem foofu timis jot wane nañu léegi image bi bi timis jotee sëñ baara ni na ñëpp waajal julli sëriñ Bousso mi nga xam ne mooy nodd si jumaa bi si biir pale mu nodd ñu dégg ñu toog ñu xaalal ka mu jur tiim géej gi nga xam ni fa la ñu yóbbu woon sëñ Tuubaa mu kàbbar ni ku akbar man sëñ Tuubaa yàlla fay na ka sëñ Baara nit ku jafe la woon sëñ Baara ku am ngërëm la woon sëñ Baara ku bëri yërmande la woon sëñ Moustapha matal nga ko sëkk waaye nag sëñ kéemaanu sëñ Baara mooy sëñ Basiir mii bi mu koy tànn. ku xamuloon àddina ku àddina taxoon ngay tànn da ngay wax ni kii risque la def ndaw gi mu tànn waaye booba xam na ni sa maam sëñ tubaa préparé na la ba foo toll daaka liggéey liggéey bu rafet tey liggéey boobu moo waral sëñ Cheikh Sidi Maxtaar jël sampaat la sëñ Baara amul moroom sëñ Baara amul moom jërëjëf sëñ Touba. léegi nag sëriñ bi dafa wax ni ki nga xam ni at mu jot. mu ni lu ma doon def bàyyi naa ko danaa am yetti guddi ak sëriñ baara ba cérémonie officielle sëriñ baara jeex ma def la ma def kastu rajab ba mu jeex ma fekke cérémonie bi at mu jot mu yendu see yéen Touba am ñetti fan di président Idriss Seck moom la jox kàddu gi président bismillah wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñépp di jiital ci cant gi ki waral ndaje mi muy sëriñ Touba di ñaan sëriñ Moustapha di ñaan sëriñ Galas ñoom ñi ràññee ne sëriñ Baara. am na doom yu santul mbàkke ba bu bis bi ñëwee ñu wër doom yooyu boole leen ci bis bi te loolu tax ma tàbb fi maa ngi leen di jox ngërëm lu ma tibbe ci sama xol di leen ñaan ngeen jottalil ma ko njabootu Serigne Bara gépp di ñaan suñu wëllëre bopp Cheikh Abdou yàlla na ma ko yàlla fayal cofeel gi mu am ci man ak ni mu ma koy wane jamono ju nekk te yow Ablaye nga ciy seede bàcc gajaga di ci seede ñépp di ci seede maa ngi ñaan yàlla mu fayal ma sëriñ Ahmadou Mbàkke mi ma àndal tàbb ci tànt bi di ñaan yàlla mu fayal ma sëriñ Moussa Mbàkke naawel sama bunt ci yoonu Serigne Touba dina ma ci jox ay bind yoo xam ni junniy ati taalibe du tax nit xam ko ci Serigne Touba donc yal nañu ko yàlla fayal yéeneem ci ñun yal nañu yàlla fayal mbokki taalibe yépp ci seen teewaay ci bis bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre porte-parole du khalife général de Mourides nga jottalil ñu suñu nuyoo suñu ziyaar ak suñu taalibe sëriñ Sidi Makhtar Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ba mottali liggéey bi nga xam ni moom la jële ci suñu maam Serigne Touba allahumma salli ala sayyidina muhammad ak dal ma jox kaddu gi ki nga xam ni yaram tegginam moo ko boole ak président Macky Sall mu yebal ko fi tey léegi rek la seen président Macky Sall dóor ñaari bëti moom ci ci kanam Serigne Bara Serigne Bara ni ko fii yaakaar du fi tase waaye nag yaram ak tegginam ak ngoram mu yebal jëmm ji nga xam ni bërki dem bi ñu demee naw naa la trop. teeru bi nga teeru cheikh mamadul bachir mu cheikh abdul xaadir ànd ak moom taalibe mbambiloor yëpp wër ko nga ni yéen taalibe mbambiloor yi yaakaar sëriñ bamba lu ngeen di bëgg ci réew mi wax leen ma ko ma nekk sama àll def ko ci du ma ci xaar kenn kooku laay jox kàddu gi monsieur le ministre Omar Gueye ñun ñëpp naan la déglu asalaamualeykum wa rahmatulahi taala ñi ngi nuyu mbooloo mu tedd mi fi teew yépp ci turu président de la république son excellence Macky Sall mi ñu yónni fii tey délégation bi lim nañ ko léegi ñu ràññee ci bu baax le ministre Khadim Diop ministre de la restructuration et de l'aménagement des zones inondées ñuy seede fii liggéey bu rafet bu muy def ci gouvernement bi liñ ko dénk dafa metti dafa jafe muy mbirum inondation te ñépp gis nañu taxawaayam bi mu ci taxaw ak résultat yu baax yu leer yi nga xam ni am na ko ci ci li muy appliquer programme mu président de la république Macky Sall ràññee nañ ci tamit ci délégation bi tudd nañ ko fii député yi ànd ak ñun ak préfet bi ak sous ak service yi nekk fii yépp président de la république dafa ma wax ni boo demee Touba ci bisu sëriñ Baara na nga jël nuyoo yu gën a sell tegal ma ko ci njabootam te Serigne Moustapha teewal leen fi ñoom ñépp te ràññee ci ay rakkam gën ci ràññee nag sëñ Galas Maktoum nga xam ni moom it député la l'Assemblée nationale te mu wax ñu ni bu ngeen jëlee nuyooy boobu ngeen tegal ñu ko ci loxoom moom sëriñ Moustapha mu teg ko ci loxo sëñ Bassir Abdou Khadr mu tegal ñu ko ci loxo yu sell yu sëriñ Touba ak sëñ Cheikh lay Mbacké yal na fi yàgg te wér kon nag sëriñ bi délégation bi président de la république yónnee mi ngi firnde rekk cofeel ak kóllëre gi mu am ci njabootu sëñ Touba rawatina nag ci njabootu sëñ Baara Mbàkke yal na yàlla yokk ay leeram cérémonie bi ñu teew tey ci jaar-jaaru sëñ Baara biñ ñu wane léegi te xam nañ ni bu dul woon temps bu gàtt mënoon nañu fi toog ba suba wala ginnaaw suba ñuy wax ci lu rafet ci lu baax ci sëñ Baara Mbàkke wante buñ du amoon ñaari yëf yuñ ci war a jàpp rekk ci wax ji lépp ci li ñuy wax ci sëñ Baara benn bi ci am solo te yaakaar naa ni ñépp ñi fi teew jàpp nañ ko mooy oyof wax bi benn la seede yi fi jaar yépp wax ci moom wax nañ ni sëñ Baara dafa oyof ñaareel biñ ci war a mën a jàpp mooy wax nañ ni sëñ Baara Mbàkke dafa fonkoon dimmali néew ji doole yaakaar naa ni ñaar yooyu yu am solo la ci li nga xam ni moom lañu ñu seede sëriñ bi président de la république son excellence Macky Sall ñu ngi leen di gërëm di leen sant gis naa tamit ci seede ñuy wax léegi fii ñu seen ko fi moom bi muy wut Sénégal ñëw sukk ci kanamu sëñ Baara wax ni ko moom da day wut Sénégal wante li muy ñaan mooy jàmm ak teraanga li ko sëriñ bi tontu tamit ñun ñëpp dégg nañ wax na ni day ah fii de ku fi ñëw di wut pour looy liggéeyee Sénégal day li ngay wut day du niin du nul yàlla def na nag fal nañ ko mu doon président de la république kon mel na ni ñaanu sëñ Baara bi yooyu ñaan googu jàll na ñuy continuer it di leen wax ni président de la république day am na ci qualité yooyu nga xam ni ku nekk ci ñun war na koo roy ci sëñ Baara mooy oyof te it taxaw ci dimbali néew doole Sénégalais yi ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku sëñ Cheikh Mati lay Mbàkke xalif général des Mourides seen Sidi Cheikh seen Mbàkke Cheikh Mati lay Mbàkke xalif général de Mourides ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku am na lu mu wax muy daaw. mu wax ni bëgg na nit ñi dellu ci mbay wax na ko daaw wax na ko ren yaakaar naa ni loolu président de la république mi ngi ci taxaw ndax ñépp d'accord nañ ni Sénégal pour mu développé mbay moo ko war a développer rawatina nag mbayum gerte mbayum gerte moomu président de la république sëriñ bi mi ngi ciy def lu am solo ngir nit ñi dellu ci loolu li ci mujj mooy njëgu gerte jiw bi mu wàññi ñëpp xam nañ ni ñeent fukki dërëm lañ ko doon jaayee baykat yi ren jii ñi ngi koy jaayee fanweeri dërëm baykat yi matériel bu doy ñu ngi ko indi pour jàppale baykat yi pour ñu dellu ci suuf def mbay am ci njariñ ndax Sénégal mënul développer te kenn fonkul mbay bi ci des mooy néew ji doole yi ñi nga xam ni dañu dëkk ci ay dëkk te luwaas bi doon leen seet ci ñoom wàññi ko sëriñ bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ni def na ko ngir jàppale askan wi ba tax na ci jataay bi sëriñ bi ñi ngi sàkku nga ñaanal président de la république jàmm am ci Sénégal ak salaam jàmm am ci Afrique jàmm am ci monde bi yépp ndax fu jàmm amul dal amu fa ak lu ñu mënti def du amal njariñ nit ñi ku weddi xool li am ci yeneen réew yi nga xam ni jàmm amu fa lu mel ni Centrafrique lu mel ni Mali gii nga xam ni moo ñu gën a jege ñuy ñaan jàmm am ci senegal ngeen ñaanal ko président ñaanal ko gouvernement bi ñaanal ko képp kuy sénégalais nekk fii ñu ngi leen di gërëm di leen sant rawma salli ala seydina muhammad wa sallim na yàlla jàppale la bég nañu lool léegi nag dañoo bëgg a jox kàddu gi ki sëriñ bi tegoon liggéey bi ci loxol sëriñ Cheikh Ndindi mu teg liggéey bi ci loxol rakkam ji sëriñ naa ak mbokk yi yëpp teg ko ci loxoom. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñoo ngi yëkkati ab nuyoo bu jóge ci sunu kilifa. sëriñ Moustapha jaar ci sëriñ Cheikh Ndindi ak sëriñ Cheikhouna ak njabootu Cheikh Abdoul Lamine Bara Mbacké gépp nuyoo boo xam ne sant yàlla julli ci yonent bi soññeente feddali sunu pas-pas rek ko tax a jóg Cheikh Mouhamadul Bachir mi xam ne moo fi teewal ak Cheikh Sidil Muxtaar ñoo ngi koy nuyu ci nuyu bi gën a tedd te di ko jottali ay nuyu Serigne Moustapha yu jëm ci ak Cheikh Sidil Muxtaar te di ko yóbbante ay cant ak i ngërëm ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom di ko yóbbante tamit ak cant ak ngërëm ci sëriñ aboo Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke mi nga xamante ni moo yor liggéeyub sëriñ Falilu bi ak njabootuk sëriñ Fallu Mbàkke gépp di nuyu bokk taalibe yi di gannaaw di nuyu bokk julli di nuyu bokk taalibe yi di leen sant te di leen gërëm ci ni ko sëriñ Baara Mbàkke daan waxee rek fii lu fi am taalibe bis bi bi sëriñ bi jotee ndigal di ko waaj ànd ko ak njaboot gi boobu ba léegi amul benn bis bu mu dul xëy suba ba ngoon du gis ab taalibe bu jóg wut li mu am yéene ko sëriñ Baara yët ko ko ngir sëriñ Baara kon mu ngi sant taalibe yi cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye nag ci ñi mu ko sañe digal di soññ boppam di leen soññ ci ak jaamu yàlla di leen soññ ci ak jub di leen soññ ci ak jubal te di leen soññ ci ak rafetal te di leen soññ ci ñu am yërmande ci ñi ñu jaboote waaye ñu am ndimbal ci seen diggante ak ñi ñu jaboote te ndimbal li li ci jiitu mooy sottante xel ak xalaat bu rafet ba li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom jullit waaye rawet na sa moroom taalibe loolu sëriñ bi mu ngi soññ boppam di ci soññ képp ko xam ne war na la koo digal bu kàddu yooyu jàllee mu ngi yëkkati ay cant yoo xamante nii da koy tibbi ci xolam ak ci turu njaboot gi yépp di ko jëmee ci jëm ji toog mu Cheikh Amadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir ci ànd bu rafet bi nga xamante nii àndoon na ko ak sëriñ baara ci nekkuk sëriñ baara ba gisatuñ sëriñ baara ci zahir ci si ay bët mm, nekkin woowee mu àndoon ak moom la àndewaat ak njaboot gi ci jëf ju rafet joo xamante ni saa su ne mi ngi koy jëf ci njabootuk sëriñ baara gi waaye rawatina bis bii nga xamante ni amuñu lu dul moom muy bisub sëriñ baara bi sëriñ Moustapha nee na jëfi Cheikh Mouhamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mii ñu ngi koy seereel xalis général de Mouride di ko seereel taalibe sëriñ Touba yi waaye di ko seereel njabootu Cheikh Abdoul Lamine gi ceere goo xamante ni gii euh, yàlla rek a tax ndax bi muy ànd ak way juróom fi la ko fekk bi woy juróom làqoo jëf yi muy jëf ci wax ak dox ak jëf yu ànd ak yéene ci kër Serigne Bara gi euh, rafet gu mu rafet tax na mu koy seereel mbooloo mi la tax mu koy def nag naam war na sëriñ bas waaye am na ñu mu war ñoo xamante ni ni ko sëriñ Bass sax di defee xëy na euh, mënewuñ ko noonu waaye am nañ yéene ja waaye li tax mu koy sant mooy nit bu jëfee li mu war a jëf jëfe ko fi mu ko war a jëfe jëfal ko ki mu ko jëfal mu toog ci mbooloo te war a joxe ay kàddu sant war naa jël kàddu cant yooyu jëme ko ci moom kàddu yooyu nee na tamit ñu ngi koy mi ngi koy yëkkatilu di ci sant jëwriñ yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër Serigne Baara te jëwriñ yi ni mu ko waxee woon sànq ki ci jiitu muy Serigne Cheikh Ndindi di rakkam ak sëriñ Serigne naa ak njaboot gi topp ci moom yépp góor ak jigéen mag ak ndaw sëriñ Bachirou Serigne Moustapha nee mu ngi lay seere cant yooyu te nee na di sàkku nga ñaanal ko te ñaanlul ko ci Cheikhul xaddim ci njabootuk Serigne Baara mbakki gi. yàlla defal leen tawféex defal leen fan wu gudd sàmm leen yiir leen naam moo nekk ci seen kanam yore liggéey bi waaye mi ngi leen di sàkkul ñaan ñaan goo xamante ni gi bëgg na yàlla dolli ak wér njabootuk sëriñ baara yàlla dolli leen jàmm te defal leen xéewal te saxal leen ci ak taali bi ba faw ndax loolu ci la sëriñ bi doon dund bu loolu jàllee mi ngi seere ay cant yu jëm ci xaadim géey mi nga xamante ni wëy juram la àndaloon ànd boo xamante ni bii fii la ko fekkoon waaye gise na ci aw doxalinam doxin woo xamante ni na mu àndee woon ak sëriñ Baara bi mu ko gisatut amatul lu mu ciy sot lu mu ciy soppi lu mu ci yokkul wàññiwu ko nee na mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm te di ñaan li muy jëfal sëriñ Baara yal na ko ci yàlla defal lu kawe di yëkkati ay kàdduy sant nag yoo xamante ni mi ngi jëm ci Serigne Mountakha moom Cheikh Amadou Bachir. te di ko teg ci kàddu ci yi sëriñ Moussa Mbacke naawel moom Cheikh Mouhamadoul Moustapha moom Cheikh Mouhamadoul Bachir kàddu cant yoo xamante ni mbokk gi moo ko lal naam waaye doxin lañ wi ak doxin wi lal na ko ndax bi mu yëkkatee xalaat bi yabal na nu dem ci moom joxoñ ñu ay kaddu yoo xam dañ ko war a wax sëriñ Moustapha nu ànd ak sëriñ Bachirou Tib mi rakkam kàddu yim ñu yónni woon bi nu ko waxee sëriñ Moussa da koo rafetlu ànd ci ànd ca xol bu sedd ba dikkal fi boppam di fedde li loolu boole ay jëf yu mag yoo xamante ni jëf ju ci ne defar na bis bi ndax xam na ne kër gi kër Serigne Moustapha Bachir kër gi kër Serigne Moussa la kër Serigne Moustapha Bachir ndax kër El Hadj Bara kër Serigne Moussa ndax kër Serigne Moustapha la ñu ngi koy sant di ko gërëm di yëkkati kàddu yu cant yooyu di ko teg ci ndawam lii mu fi yabal. ànd ak njabootuk sëriñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Bachir kenn desul du góor du jigéen ñu ngi leen di sant te di leen gërëm di yëkkati kàddu ay sant ak ñaan yoo xamante ni mi ngi koy jëme ci nit ñi dëkk ci dëkk bii di Aliya ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ni taxaw nañ ko ci bis bi ci lépp loo xamante ni santoon na leen ko ngir ñu war koo taxawoo bis bi saytoo ko ko setal dëkk bi te yaatal seeni kanam yaatal seeni kër ngir daloo gan yi yëg na ne loolee lépp matale nañ ko waaye nag di yëg ci ay cantit di ko jëmee ci doomi boppam muy Serigne Moustapha moom Serigne Mbacke Soxna Lo ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ni bii taxaw na ko ci bis bi ci yabal fi ak njabootam kenn desul mu xamal leen ne leen li Serigne Moustapha di defal Serigne Baara sama maam man la koy defal dem leen fa ngeen nekk fa lépp loo xamante ni lu ñu fa war a def la wala lu ñu leen defloo na ngeen ko def bërki démb ba léegi ñi fi lépp lu leen waroon def nañu ko Serigne Moustapha mi ngi leen di sant di leen yóbbante cant goo xam mu jëm ci Serigne Moustapha Mohamed di ko ñaanal di ñaanal waajuram woowee di xaritam doo doonoon xaritam muy Serigne Mbacke Soxna Lo yan na ko yàlla dolli ay leer te yàggal Serigne Moustapha gannaawam te rafetal ab liggéeyam ci gannaaw Serigne Mbacke bu loolu jàllee Serigne Moustapha mu ngi yëkkatiwaat ay kàdduy cant yoo xamante nii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ki muy sant nag. mooy président de la république Macky Sall cant gi nga xamante nii la yëkkati ci xolam di ko sant euh, naam war na ko ndax président de la république tous les sénégalais la waaye daf koo war ngir li mu gis fii ñu wane ko wala boog li nit ñi gis fii ndax moom am na lu mu fekkee woon démb lii soog a feeñ ndax lii ñu wane am na taxawaay bu ko jiitu boo xamante ni bii Serigne baara taxawu na ko ci doomam jooj jooju muy président Macky sàll muy taxawaay bu rafet di taxawaay boo bii jëf la joo xamante ni feeñ na ci nekkin wi mu nekk ci réew mi kon moom bu sëriñ baara jëmbatee nit am lu mu def ci moom kookee fekkoon mu sàkku si ko ci moom mu fekke woon jataay ba jiitu woon loola kon moom amul yenn yitte lu weesu lu sëriñ baara laaloon waxoon ca defoon ca sëriñ Moustapha lam cay wax mooy la ci sëriñ baara waxoon sëriñ Moustapha amul lum ciy def lu dul la ci sëriñ baara defoon sëriñ baara da cee ñaanoon jëmbatoon ci suuxatoon ci loolee mi ngi koy fedd digganteem ak moom di ko jaarale ci sunu di ko sant di ko gërëm ci taxawaay yu rafet yii nga xamante ni taxaw na ko fi te di ko ñaanal ci réew mii nga xamante ni la yàlla teg ci loxoom li mu waxoon sëriñ baara dégg ko ak li ko sëriñ baara tontu ku ne dégg na ko mu di ko dénk mu gën a bàyyi xelam ci li mu waxoon Serigne baara waaye mu gën a bàyyi xelam ak xolam ak yéeneem ak pas-pasam ci li ko Serigne Bara tontu woon monsieur le ministre mi ngi lay yóbbante loolu ndax ki waxoon ak moom ki doon waxal Serigne Bara te tey ki war a wattu waxi Serigne baara wala ki war a wattu ay jëfam Serigne Moustapha mii la nee na mi ngi koy fàttali kàddu yi mu waxaloon boppam ci kanamu Serigne baara ak li ko Serigne baara waxoon mu dégg ko. nee na mi ngi koy gën a soññi mu jàpp ko te dolli yërmande ci askan wi te dolli yërmande ci taalibe Serigne Touba te xew-xew yii fi am bu yàggul rawatina xat-xat yi nga xamante ni moo am ca bërëbu jàngukaay bee nekk ndakaaru ñu naan ko université mi ngi ñaan Cheikh Madul Lamine ci bisam bii yan na ci yàlla sotti ndox mu sedd ba mu sedd guyyu te dara bañ faa tàngati ak feneen fu mel noonu ci réew mi te gànnaar euh, Casamance gi coow la fa nekk di lu yàgg lool mi ngi ñaan ci màggug sëriñ Baara Mbàkke Falilu yàlla mi nga xamante ni moo mën a seral mbir yal na fa yàlla def mu sedd guyu ba jàmm ja nga xamante ni lañuy dox di ko fa wut yàlla jàppandal ko yàlla yëwanal ko ci doolee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou ndax bis bi àttan na ko bu loolu jàllee mi ngi sant président Idrissa Seck mi fi toog ndax ni mu ko junje woon sànq euh, rek moo tax mu koy sant mooy moom ci boppam moo waxaloon boppam ne yëg na ni sëriñ baara am na yeneen doom yu santul Mbàkke te moom jàpp na ne ca doom yooyu la bokk loolu moo ko boole ci bis bi te ba mu ko waxee ba léegi ñu ngi koy dundal kemtalaayal kàttanam kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay yi nga xamante ni weesuma ak bu tey bi tey séntu yu rafet yi jëm ci kanam di sant ma dikke ñang mii nga xamante ni ci njabootuk sëriñ baara la bokk ndax dundoon na ko ak sëriñ bi sëriñ bi dundoon na ko ak moom ba njaboot gi yépp xam ko di jottali tamit ay kàddu yoo xam mi ngi koy yóbbante ma dikke mu jëm ci président Abdoulaye Wade taalibeeb sëriñ Touba ngir bi fi sëriñ baara nekkee mu nekk fi euh, sëriñ bi naam li ëppoon ci ay yitteem mooy ñu dimbale askan wi li ëppoon ci ay yitteem mooy ñu taxawu taalibe Serigne Touba yi li ëppoon ci ay yitteem mooy nu réew mi yokkee te am jàmm te li ëpp ci ay mébétam wala ay yéeneem yamu mu fa bàyyi bokk na ci ñaari mandarga yoo xamante ni du raaf du raaf ba mukk muy jumaay Masaalikul Jinaan ji nga xamante ni Serigne Bara ko dox sàkkul ko boppam ba lee ca am am ca. muy Serigne Moustapha di ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar bi yor liggéey bi gannaaw Serigne Baara yal na ko yàlla defal mu yeggale kook jàmm ba yeggale ci yéeneem rawatina lee nekk ca Padoa muy liggéey boo xamante ni bii bokk na ci yëngu bu Serigne Baara doon yëngu ngir gën a taxaw taxawaayu taxawal islaam waaye taxaw taxawaayu boo xamante ni bii ku ko gis wala ku ko dégg wala ku ko séen xam ne kii sëtub Serigne Touba waaye kii taalibeb Cheikhul Xaddim la bu nekk ci biir kër Serigne Falilou boobee ci loxoom la jaaroon ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm te di ñaanal sëriñ Abo mi nga xamante ni bii moo yore liggéey boobee yàlla mi mën a yeggaleel nit ay yéeneem te rafetal aw doxalinam yal na ko defal nu mu kawee njortam ci barkeb sëriñ Falilu di sant képp koo xamante ni kii fépp foo mën a nekk sa yëngu euh, sa yëngu ak sa jëf ci réew mi yaa ngi koy dox ngir jàmmi réew mi yaa ngi koy dox ngir jàmmi Sénégal yaa ngi koy dox ngir teg réew mi yan na la yàlla defal sa taxawaay boobee tawféex ñu ngi rafet lu teewaayu Talla Sylla mii nga xamante ni teew na fi ci mbooloo bi te moom bokkoon ci jabootug sëriñ Baara te daan ko dund di ko dundal kon sëriñ bi kàddu yooyu hmm, kàddu yooyu la yóbbante woon ci autorités yi gannaaw bu mu yóbbantee ci kilifa yi xaritam bii nga xamante ni. bis bi fu mu ko mën a fekk ci àdduna muy abib Sakho di doomu Alaaji Ibrahima Sakho taxawaayam bu rafet boo xamante ni bii mi ngi ko doon taxaw ci wetu Serigne Baara waaye gën koo feddali ci taxawaayam ci wetu Serigne Moustapha mi noo ngi ko ci sant te di ko ci gërëm te di ko ci ñaanal yàlla na mi nga xamante ni moo ko tax di dox ci toolub lislaam bi yal na ko yàlla defal ndam di sant nag euh, média bi nga xamante ni bi liggéey bi tàmbalee ba léegi ndigal jóge ci sëriñ bi noppaluwuñu guddi noppaluwuñu bëccëg ci jàllale ay kaddu walla jàll dalal ay boroomi xam-xam yoo xamante ni dañuy yëkkati seeni kàddu di leeral liggéeyub sëriñ baara walla di wane doxinu sëriñ baara waaye di gën a kennal liggéeyub cheikhul xadim di sant sécurité bi nga xamante ni bii teew na fi ci bi liggéey bi tàmbalee ba léegi muy gendarmerie di police di sapeur pompier di ñu yore mbirum docteur yi muy service d'hygiène wala sante lépp loo xamante ni lu ci aju la taxawaay boo xamante ni bi waroon nañ koo am taxawee ko ci bis bi taxawee ko ci dëkk bi te taxawee ko ci këri njaboot bi lépp matal nañ ko kon sët yi nga xamante ni nag ñooy sëti Cheikh Modou Lamine Bara Mbacké Falilou mhm. seen nijaay di seen sëriñ di seen taalibeeb maam di sëriñ Moustapha mu ngi leen di cant cant goo xamante ni kii am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem te di leen seereel ne doxin woowu képp moo war a nekk seen doxin loolu yi ngeen di yëngu te mu jox leen ci ndigal mooy saytu li nga xamante ni te ànd koog njaboot gi moom la seen maam doon doxee ci digganteem ak bokk yi doon ko dox ci diggante moom ak dëkk bi ak feneen fu mel dëkk bi liggéey boobu yi ngeen ci def mi ngi leen di ñaanal ngeen am ci lu kawe seen njort ci barkeb Cheikh Abdou Lamine Bara Mbacké Falilou ci biir ñaan gii ñu doon def bi ñu ko yëkkatee tudd ko Serigne Moustapha ngir fàttaliku ko ngir la mu seqoon ak Serigne Bara Serigne Moustapha dafa joxewoon ndigal ne nan ci bàyyi xel jàmbaari Serigne Bachiru ja muy Serigne Muntaqa muy Serigne Abdul Hakim moom Serigne Bachiru bàyyi ci xel Serigne Abdul Baaxe moom Serigne Masamba ndax ñooñee ci njaboot gi lañ bokk. di bàyyi xel soo sëriñ xaadim mbàkke mi nga xamante nii moo doon rakki sëriñ Moustapha bokkoon ci njabootu sëriñ Baara Mbàkke Falilu ak képp koo xam ne ca nga ci njaboot gi nga bokkoon tey góor te làqu sëriñ Moustapha nee na mi ngi sàkku ñu ñaanal leen yàlla dool leen ay leer fa ñu nekk ba li ñu ñaanal seen way biir ñu jot ca soxna maam awo mi nga xamante ni moo jiite njaboot gu jigéen ji rawatina ñi làqu te ànd ak moom ñëpp te nga xam ne làqu moom ab cër la boo xamante ni ala kulli haalin kuy dund rek koy jëli ñoom dañu doon dund ak ñun ba seenub cër mat ñu jëli ko ñun ñu nekkandi fi sunub cër matagut kon war nañ leen di fàttaliku te di leen ñaanal ngir yàlla dolli leen ay leer fanu nekk bu loolu yëpp nag jàllee ci sama kaddu laay waxee ci kàddu Serigne Cheikh Ndindi ak njaboot gi yëpp Cheikh Mouhamadoul Bachir noo ngi lay sàkku ci yow di sàkku ci jullit yi fi teew wala ku ñuy dégg ak foo mën a dem ak foo mën a nekk di yóbbante sàkku ñaan ci as Cheikh Sidil Muxtaar di sàkku ñaan ci sëriñ Abu ak njabootuk sëriñ Touba gépp di ko sàkku ci kudib jullit te di ko sàkkul sëriñ Moustapha mii nga xamante ni moo yor liggéeyub sëriñ Baara Mbàkke Falilu bi te yore ko yorin woo xamante ni am na ci yéene am na ci bëgg-bëgg te dara lalu ko lu dul lu baax sëriñ Bachiru noo ngi lay ñaan nga ñaanalal nu sunu kilifa gu baax gii yàlla mi nga xamante ni moo mën a musal nit yal na ko yàlla musal sëriñ Moustapha yàlla mi mën a sàmm nit yan na ko yàlla sàmm sëriñ Moustapha yàlla mi nga xam ne moo mën a yeggale yéeney nit yan na yàlla yeggale sa ay yéene yàlla mi nga xamante ni mooy def sëriñ Baara jóge fi nga toog ab toogaayam toogaay bii nga toog toogaayam yore liggéey bi sëriñ Moustapha ñoo ngi ñaan lépp loo xamante ni sa mébét la te nga ànd ko ak njaboot gi di ko fas yéene liggéeyal Cheikh Madou yan na ko yàlla mottali ci fi nga koy tàmbalee nga def ci lu kawe sa njort lool lu yàgg lool te am ci sa ngërëm maam Serigne Falilou sëriñ Bachirou du nu jóg di sàkku ñaan ak cant ak i ngërëm yu jëm ci sa jëmm jii ci taxawaay bu rafet bi nga xamante nii ndax nit daa am loo xamante nii bu fekkente ni wax nañ la ko nga dégg ko mu rafet boo ko rafet loo war nga koo wax waaye loo fekke dund ko yëg ko buñ koy jëf te buñ ko jëfee yow lañ ko jëfal ndax lu waay jëfal Serigne Baara rek ko bëgg lu baax nga ko jëfal te Serigne Bachir Abdoul Khadir mi jëfam ci njabootuk Serigne Baara Mbakke Fadilu gii noo ngi seereel mbooloo mi ci kat ci turu Serigne Moustapha ne jëfam rafet na yaatu na yiw na te lu baax rek ko lal loolu bëgg nañ képp ku fi teew nga xam loolu yëg loolu. jàpp loolu te yóbbaaleel ko Serigne Moustapha lépp nag loo xamante ni lu jàngar ci kàddu gi la ci man mii nu wax loola waaye ki ma wax loo muy Serigne Moustapha jaarale ko ci Serigne Cheikh Ndindi mu jaar ci Serigne Cheikhouna seen seeni kaddu ak seen yéene ak seen i bëgg-bëgg ak seen i mébét moo ëpp li ma fi wax te moo gën a jub li ma fi wax moo gën a sell li ma fi jàllale di santaat di gërëm képp koo xamante ni kii yëkkati woon nga sa ñaan jëme ko ci Serigne Baara foo ko mën a defee yal na ko ci yàlla jotale yoon ba sëriñ baa ngi soññiwaat njaboot gi ñu xam ne ñaan gi moom du luy dakk naam ñi ngi ci saa su ne ngir gën a waajalaat bis bii déwén tey ñaan yàlla daj daje bii nu daje yàlla ba mu nekk sunu mujj ga daje wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ne yaatu na lool. ba mu ne su ko wax cib jotaay. waaye tënk nañ ci loo xam ne. waaye tënk nañ ci loo xam ne. ñëpp mën nañ koo jëriñoo. ñëpp mën nañ koo jëriñoo. nekkoon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla na sunu boroom dolli leeram taas nu ci barkeem ne bàyyi fi njaboot gi mu fi bàyyi ñu yàgg koo ñaanal gannaawam ne di xamal nag Serigne Moustapha itam ni ko képp ku fi ñëw rek ne cant gi moom la war ne diggam ak sëñ Baara waaye mu di la ci wax lu gàtt. xamal di la xamal ni. képp ku fi ñëw. képp ku fi ñëw. da ngay fay si bor. da ngay fay si bor. waaye lebal si woo waaye lebal si woo ko. koo fi gis ne koo fi gis rek. Cheikh Mamadou Lamine Baara. Cheikh Mamadou Lamine Baara. ji na ko ci teraanga. ji na ko ci teraanga. akub yëg. akub yëg. bala mu xettali ko. bala mu xettali ko. ci ci saahir ak baati. ci saahir ak baati. ndax Serigne Baara. ndax Serigne Baara. dafa doonoon jëmm joo xam ne. dafa doonoon jëmm joo xam dafa mel ne waajuram wu tedd. dafa mel ne waajuram wu tedd. lu la waxoon rek ala inni wa in kasra alfuduli falastu bi faailin illa almurua wala abgi alamanata min shafii isi sufahum charu lbaria mhm. cheikh mahmadul fadal ne cheikh mahmadul fadal dafa waxoon ni dafa doonoon jëmm joo xam ne dafa doonoon jëmm joo xam ni ku yéeme noonu ne ku yéeme la woon te bari kaf waaye nag daa wax ne waaye dadaa wax ni kafe rek lu ma kafe rek day day dëppoo mbañum rus. day dëppoo mbañum rus. Eh, Cheikh Mahmoudou Bachir. Cheikh Mahmoudou Bachir. daana seere gi Cheikh Mahmoudou Fadil. nee daana seere ci Serigne Fallou. nee Cheikh Mahmoudou Fadil de. ni Cheikh Mahmoudou Fadil de. jëmm la joo xam ne. jëmm la joo xam ni. lu mu kafe rek yàlla def ko lu mu kafe yàlla def ko. kooku nag. kooku nag. fal ab cër yam. fal ab cër yam. ndax lam wilaayaam. nee wilaayaam. la ci ëpp. la ci ëpp. dafa nekkoon ci làmmiñam. dafa nekkoon ci làmmiñam. waaye Serigne Bara mi jëmm la joo xam ne jëmm la joo xam ne ku ko xam ci baatin ci baatin doo soxla sayiram doo soxla sayiram ne image yi ñu doon wane nag firi na ko jëf te jëf moo mën a yóbbaale wax moo mën a yóbbaale wax waaye wax du yóbbaale mu ko jëf kon ñu ngi koy ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuuba suñu borom dolli leeram ndax moom jëfam ba àddunay tukki kenn du ko kenn du ko fàtte. kon nag li am solo. kon li am solo. jukkoom ju baax jooju jukkoom ju baax jooju le. nga xam ne àddina sëpp. nga xam ne àddina sëpp seede na ko. ñëpp roy ci ñëpp roy ci. te fexe ba góor ci te fexe ba góorgóorlu ci. ba keroog ñu di ko fekkee ba keroog ñu di ko fekkee. di di soññ nit ñi. di soññ nag nit ñi nag. ñu xam ne ñu xam ni. nit nit. boo nekkee moom boo nekkee moom. ba gisatoo ko ba gisatoo ko. war ngaa fexe ba. war ngaa fexe ba. wala la nga doxoon sa digg ak moom. nga di ko mottali. ndax Serigne Abdou Khadir daana wax ne Serigne Abdou Khadir daana wax ni. nitug yàlla nitug yàlla. bu fi nekkee ci àdduna bu nekkee ci àdduna. di la xoole ñaari bëti yërmande di la xoole ñaari bëti yërmande. boo demee ba gisatoo boo demee ba gisatoo ko. bët bu ci ne bët bu ci ne. suñu borom da koy ful suñu borom da koy ful. nee na képp koo xam ne nee képp koo xam ni. yaa ngi jokk wëllëre yaa ngi jokk wëllëre sa diggal ak njabootam dañ koy gis képp koo xam ne ki dong nga seen kër te daa fa ñëw te ñëwatoo fa dañ koy gis kon nag ku sax xel dem ci ni da nga leen fekki war ngaa fexe ba di ko rafetal rafetal gi nag mooy jokk gi nu ko suñu borom santaane te Serigne Touba danaa wax ni adduna du jag mukk waaye du yàqu mukk waaye du yàqu mukk kon lu agsi lu ne kon lu yegsi lu ne na nga fexe ba rafet ca rafet ja nag mooy loolu kon ñu ngi leen di ñaanal di sant sëñ Moustapha di sant sëñ Moustapha bu baax ci taxawaayam ndax fanu waajuram tegoon fanu waajuram tegoon rek ci nekkam ci nekkam foofa la ñu teg ba mu ko gisatul ba mu gisatul sëñ sëñ Baara itam nee sédd na ko cër bopp dafa ëpp kon mi ngi koy sant bu baax. cant gu amul tàmbali. waaye amul fu mu yem. ndax mboolem lu ko war ci man mboolem lu ko war ci sëñ Bachirou. ci jàpp ci jàpp. akuk fonk akuk fonk. ak wëllëre ak teg ca kaw ak ca kaw. dafa ëpp dafa ëpp. kon ñu koy sant bu baax a baax. di ko ñaanal itam. ci barke waajuram ci barke waajuram. jataayam bi yàgg lool. tey rafetal na ko. ndax mboolem ku ku dëkk ci dëkk bi mboolem ku dëkk ci dëkk bi te bokk ak moom Serigne Touba te nga bokk ci seexi Serigne Touba yi wala nga bokk ci taalibe yi ñëw nga fi ñëw nga na ci loo ne na loo xam ni li waajuram di baax baax di baax baax bu ko sàmmutoon bu ko sàmmut woon ku ne da nga koy dund sa ku ne da nga koy dund sa kër waaye nag jikkoom waaye sa jikko ak sa yitte ak sa ak sa taxawaay ak sa taxawaay moo tax jataay bi moo tax jataay bi mel nii te boo fi téyewoon nii te boo fi téyewoon ba tey dem ba tey képp ku bokk sëñ Tuubaa képp ku bokk sëñ Tuubaa ñëw na fi. woyofal ko ko. ak li ngay faral di wax ak li ngay faral di wax rek. sëñ Baara mbiram sëñ Baara mbiram. lépp dafa dugg ci sëñ Fallu. lépp dafa dugg ci sëñ Fallu. nekkoon fii kenn du fi xaj. fii kenn du fi xaj. waaye yàlla na yàgg lool. yàlla na suñu borom fayal ñu ko. fayal ñu la. fayal ñu la. sa taxawaay sa taxawaay. ak sa yéene ak sa yéene. ak sa jëf ci ñun sa jëf ci ñun. ñu di ko seeral àdduna sépp ñu di ko seeral àdduna sépp. di la xamal ni di la xamal ni. fa la fa la sa sa waajur fa mu ñu tegoon. sa waajur fa mu ñu tegoon. damay wax ne da nga koo yokk. day wax ne da koo yokk. waaye wàññiwoo ci dara. te am na firnde yu bari. yoo xam ne ñëpp xam na ko. ndax yow yàlla bind na la. ne yow yàlla bind na la. ku fit nga. ku laabir nga it nag ni nga nuroo sa waajur waaye ku dëggu nga ci réew ku dëggu nga ci li ngay def ku nga ci li def kon nag loola ñëpp xam nañ ko ci yow ñu ngi sant sarak yëpp rawatina sa jëwriñ yi sëñ Cheikh Ndindi ak sëñ Cheikhouna ak sëñ ak sëñ Galas Kaltoom mii nga teg liggéey bi ci loxoom tam rafetal ko lool. kaddu yi mu seere te kaddu yi mu fi seere loola la ñëpp di séntu loola la ñëpp di séntu ndax ku sañoon ndax ku sañoon euh, lu mel ni am sa lu mel ni am sa kër te mooy ñëpp àndandoo te ñëpp àndandoo booloo booloo nekk benn te kàddoom gi firndeel la ko kon moom it ñu ngi koy sant bu baax ne loolu rek mooy seen njëriñ ne sëñ Abdoul Ahad Mbacké daan wax danaa wax ni sa kilifa. sa kilifa. loo ca fekk rek. loo ca fekk rek. loolaay sa muur. loolaay kon yoon wi. kon yoon wi. noonu la ko Serigne Touba tëralee. noonu la ko Serigne Touba tëralee. mooy ki mag jiitu. mooy ki mag jiitu. ka ca war a topp topp ca. loolu la ko Serigne bi doxalee. ba mu yegg si fii. kon ñu ngi ñaan suñu borom. ñëpp gën cee góor di rafetlu bu baax itam. di bu baax. Eh, bis bi. bi. tuddee gi ñu ko tuddee. tuddee gi ñu ko tuddee. cheikh Mamadou Moustapha moom cheikh Mamadou Bachir moom it mu doon jëmm joo xam ne ji taxawaayam ñëpp xam na ko ndax sëñ Moussa na mu doon dundee Serigne Touba ak na mu doon dundee ak taalibeem nee sëñ Abdou Khadir mas na koo seedeel ni sëñ Moussa Bachirou de taalibe gi biir ak bitee ci yem ci mbooloo akuk wéet noonu mu ko doon dundee. te noonu mu ko doon dunde ni la ci yare njabootam ni la ci yare njabootam gépp. yare ci kër sëñ Bachirou. kon bu ngeen defaatee nii. boole seen bopp. boole seen bopp. dajale loo xam ne lenn rek la. dajale loo xam ne lii loolu kat lenn la. lenn rek la loolu daal moo doon bëgg-bëggu sëñ bi. ndax sëñ Tuubaa ñaan na ko ndax na ko boromam. ba suñu borom may ko ko ba ko ko. kon nag képp koo xam ne. kon képp koo xam ne. yaa ngi jéem a gàttanu ñaan gi yaa ngi jéem a gàttanu ñaan gi. ñaanu sëriñ Tuubaa suñu borom dañ la defal la nga bëgg. dañ la defal tawféex. kon nag lii ngeen def lii ngeen def loolu rek la ndax li ñu bokk ndax li ñu bokk muy Serigne Touba muy Serigne Touba mënee su ko séddoo lu ñu mënta séddoo nag des lu des koy rafetal rek des di rafetal bokk ga kon ñu ngi sant bu baax lépp di ko rafetlu di ñaane te mu gën a rafet ba nii mu rafete ba yegg si fii suñu borom gën koo sàmm ndax mbirum Sëñ Touba doonu ti pexe ñaanu suñu borom la ñaanu suñu borom la ak jëf ju mu liggéeyal boromam ba mu yegg si nii. kon nag. doomu aadama lott na ci doomu aadama lott na ci. jéem ca man dara jéem ca man dara. kon li am solo rek kon li am solo rek. mooy yéene ko Serigne. mooy yéene ko Serigne Touba. jariñoo ko ndax moom. ndax moom suñu borom noppi na ci mbiram. ci léppam ci léppam. ndax bu fekkonte ne ay nee bu fekkonte ne ay pexe la. ay pexe mën na ci moom ay pexe mën na ci Serigne Touba dara. kon yoon wi du yegsi fii. moo tax ku xamul mbirum Serigne Touba. moo tax ku xamul mbirum Serigne Touba. yaay xalaat ak tiit ak a jàq waaye sëñ Tuubaa fàggu na lépp ne waxoon na sëñ Modou Moussa ni ko ne ko xamal ko ne ko. ni ko xamal sëñ Modou mu ni ko. yoon wi de. yoon wi de. noppi naa ci lépp. noppi naa ci lépp. maa ngi mel ne. maa ngi mel ne. rabb gi nga xam ne. rabb gi nga xam ne. dafa def ay sorom. dafa def ay sorom. ba mu jekk. ba mu jekk. mu denc ko ci barab. mu denc ko ci barab. lu soxlaa génne rek. bu soxlaa génne lu soxlaa génne. lu soxlaa génne. mu bu jamono laajee. bu ko mu génne ko. mu génne ko. ñëpp ne lii ana fu ne lii ana ko dencoon. kon Sëñ Tuubaa mbiram. kon. amiin.